Franc Bombardier Talfa Youssou Ndour du daw ci benn télé en live pay-per-view ci seen affiche rek nga ko mën a amee bu fekkee ne da ngaa bëgg seetaan sa combat Franc Bombardier Youssou Ndour Talfa déglu tegtal yii da ngay dem sa navigateur nga tapé www point senaffiche point com pour duggee ci senaffiche point com di nga jàkkaarloog combat Franc Bombardier boo ci cliquer di nga am ñaari moyen de paiement yépp bu fekkee ne da koo bëgg jënd ak sa carte bancaire da ngay bës si achat connexion boo bësee si achat connexion dina la andil fi ngay dugal sa email ak sa mot de passe bu fekkee ne mosoon ngaa jënd ci senafiche.com da ngay toppee email ak mot de passe bi nga xam ne nii moom nga tàmm jënd waaye bu fekkee ne mosoo jënd ci senafiche.com da ngay bës ci bouton inscription nga dugal sa email confirmer sa email nga dugal sa tour complet def sa mot de passe confirmer sa mot de passe bës ci bouton j'accepte les conditions nga dal di valider. bu boobaa seen affiche dina la laaj ngir nga dugal say information bancaire su boobaa da ngay dugal tur bi nekk ci carte bi sa numéro de carte sa CVC ak sa date d'expiration boo paree nga confirmer di nga mën a am accès ci com bu fekkee ne da ngaa bëgg connecté wu da ngay utiliser email ak mot de passe bi nga xam ne ni moom nga jëndee. bu fekkee da nga bëgg jënd sa paas ak sa orange money da ngay composé dièse 144 dièse 5 étoiles 346 360 étoile 2500 dièse nga bës touche appel bi bu boobaa orange money dina la laaj ngir nga confirmer ak sa code secret boo confirmer Senafis dina la yónnee benn lien de connexion automatique boo xam ne nii boo bëggee connecté wu rek mën nga ci bës te tamit. dina la yónnee benn code boo xam ne nii saa boo bëggul utiliser lien de connexion automatique bi wala nga koy seetaan sa code boobu ngay dugal bu fekkee ne danga ko bëgg jënd ak sa compte Wave da ngay dem ci senaffiche.com da ngay bës fii ñu bind paiement sécurisé Wave Orange Money Free Money nga bës payer avec Wave boo ci duggee dina la laaj ngir nga bind numéro de téléphone bi nga xam ne nii moom nga bëgg ñu yónnee la ci message bi nga confirmer numéro bi nga bës payer avec Wave bu boobaa dina la yóbbu ci sa application Wave boo valider paiement bi Senafis dina la yónnee benn message boo xam ne nii dina am lien de connexion automatique bi ak code bi. yow mi bëgg nag utiliser code bi nga xam ne moom lañ la yónnee déglul tegtal yii da ngay copier code bi boo ko copier nga dem ci senaffiche.com boo demee ba ci page bombardier franc bi nga bës fii ñu bind connexion par code boo cliquer ci connexion par code nañ la indil benn champ boo xam ne ni foofu ngay def sa code fii nii nga gis ñu bind saisir code ici foofu ngay bës nga kole fa sa code wala nga tappe ko fa nga def connexion. te di leen fàttali ne benn code pour benn appareil rek la moo xam ngay utiliser ci sa téléphone wala nga koy utiliser ci sa tele waaye benn code pour benn appareil rek kenn mënul utiliser benn code ci ñaari appareil yu bokkul.